ci bëccëgu tey ji lakk gu tar moo jub ci ancienne piste bi nga xamante ne moom moo tàqali wakaam cité avion ak VDN bi li ko waral du lenn lu dul nguur gi jóg ngir jëlee fa ñi nga xamante ne nii ñoo fa toog te toogin wi demewul ci yoon ba waral ñii di mécanicien yi fay daan seen doole taxaw temm ne dara du ci am. waaw mënuloo xeex ak ñun ci biir terrain bi ay ñàkk fay daal sa daje. ñuy liggéey ñëpp la ñuy arrêté liggéey. ki ngeen gis nii moom dafa bokk ci mina daan doole yi nga xam ne ñoo dëkk fii ci ancienne piste bi di ñu expliquer nan nañu def ba génne leen fii affaire bi daal dañoo xëy liggéey ñu woo ñu téléphone ne ñu ne ñun seen i seen kër yi ngeen dëkkoon ñu ngi leen di toj dégg nga ñun tam amuñu fenn fu fii fii la ñuy suturloo fii la am dégg lu ñu lu ñu yónnante suñuy baay ak suñuy yaay fii lañ koy jële sàccuñu fenuñu njaalowuñu lu ñu am lu ne du ko suturloo fii lañ koy jële bay mas ñu gën ko xam ci bëri bagage moom itam mom mom garage bi nga xamne tay mo lak wa tay dal gaay xey nañu ni vraiment dañu ñu dëgër piir wa ci pis ma boobu nak ci lañ nekkon xam nga comme fi li place kay la garage la te lu nekk nga fi am nañ fi ay matériel yu nekk ay moteur ak ay lu nekk euh gaay bi ñu commencé di dëgër piir nak daf ci am magasin bo xamanteni ni dafa yawé di carburant ak yu demee noonu waaw xam naa foofu nag bi ñuy kii ci la amee explosion parce que foofu la suñu groupe électrogène bi nekk te mooy alimenter garage bi. waaw man daal li ma fi jotoon a xayma nga xam ne moom laa jotoon a dajale bokkul ak yi nga xam ne stock la mais yi nga xam ne euh, évalué woon naa ko daal ba teg ko valeur à peu près vingt cinq millions et quelque la woon nag ma teg yoo xam ne ci laa waroon sama fonds de déroulement kon mu mel ni ne lii nañ leen jëlali woon. fii ci ancienne piste bi di lakk bi fi amoon Lamine Pène ngir Sénégal TV. man leen présenter, présenter ce service mieux que